asalaamaaleykum mbokku Sénégal ñu fas yéene tey nag jukki tuuti ci projet bi rek jëmale ko ci càmm gi xam nga ñun Sénégal bëriwuñu fukk ak juróom-ñetti million dong lañu ni ñu def ba dootuñ dem jëggaani ganaar war nañ koo mën a def ba dootuñ dem di jëggaani ndawal walla meew boo xam ne dafay jóge ci xar walla mu jóge ci nag te càmm dafa nekk ci ponk yi nga xam ne moo gën a am solo cim réew càmm nag euh, lii jafe-jafeem da ca jiitu mooy ndox beneen bi mooy aliment de bétail beneen bu ci topp mooy nu ñuy def ba jur gi buñ feebaree ñu faj leen maanaam parc de vaccination yi. moo tax projet bi am euh, programme bu rëy boo xam ne def koo jëmale ci loolu waxoon nañ leen fi par exemple. ne leen ay coopérative ci wàllu mbay mi dana am coopérative yooyu nag niñ ko defee ci mbay mi lañ koy defee ci càmm gi ba pare def ci liggéey boo xam ne day am lëkkaloo diggante coopérative mbay mi ak coopérative càmm gi ñu war a nag def loo xam ne lii ay minérance lay doon ci fépp foo xam ne fii sàmm dafay jaar mini ranch yooyu ñu def ak li ñuy wax culture fourragère xam ngeen ko bu baax mooy mbay moo xam ne bi ñax rek lay jur ngir li nga xam ne mooy jur gi def fa ndox def fa tim li nga xam ne mooy parc de vaccination loolu su ko defee nag yi li nga xam ne lañuy dox ay téeméeri kilomètres dem di wuti ay fu ñu naanee ànd ak seen borom loolu dana xaw a dal doo tuuti ci Sénégal te loolu mooy tax ëllëg si biir ñu mën leen jox aliment bu doy di leen vacciner li nga xam ne moom lañ leen war a vacciner ba bu ëllëg si biiree ñu mën a am lu doy ci réew mi jëm ci ndawal am loo xam ne aussi lu doy la jëm ci meew bu tabaski jotee tim bu ñu defee programme bu mel noonu muy programme bu yaatu li ñu soxla ci xar ci réew mi wax naa ko fukk ak juróom-ñetti million bëriwuñu mais boo ko calculé ci ay famille yi gën a tuuti Sénégal war naa mën a defal boppam ay xar yu ñu tabaskee li jëm ci nag yi itam noonu lay mel réew su bëggee moom boppam il faut ko mënal boppam mënal boppam moo tax nga moom sa bopp li ñu mënoon tënk bari na lool mais ñu jukkil leen lool rek tey ci projet bi nga xam ne euh, wàll boobu moo jëm ci wàllu euh, càmm gi. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.